Rewmi 24 leen ak jaamoo ci xibaar mu mel ne jamono yi fiche parrainage Ousmane Sonko boobu moom la askanu Sénégal yëpp di xaar. ginaaw ba nga xamante rek tribunal bu Ziguinchor daal dina koy jox dëgg mu mel ne avocat mi jamono yi la bëgg rek mooy dem ca DGE moo daal di leen jox fii su parrainage Ousmane Sonko boobu ginnaaw rek ba nga xamee ne siis bii di Sabassy Faye jox na leen dëgg ñu bari ci askan bi rek ñu ngay wax ne lolé sax mom mo tax parrainage yi dal di taxaw ndax ñu bari rek ci candidat yi ñi ngay wër di wut ku leen parrainel waaye mënuñu ko am ndax Ousmane Sonko ma ñu jàpp rek mom moo bloqué parrainage bi nga xamante dal mom moom loolee waral rek kër mënu def ay parrainage ñu bari sax ñi nga xam andu ñok ñom sax dañu ko yéna rek mu jot fiis parrainage am ngir japp ne rek mom mo waral kenn mënut am parrainage kon mi ngok jamono yi askan bi yépp li ñi xaar rek moy Ousmane Sonko mi nga xamante moy candidat di bobul ñu jox ko fiis parrainage am ngir nag mom mëna commencé rek ay parrain am kon boog loolu la ñu xam ne rek sukkandikoo nag ci avocat mi ña ngay xaar rek cour suprême bu Ziguinchor rek ngir mën a récupérer seen fiche parrainage boobu rek daal di mën a commencé ci liggéey bi